ñu ngi lay sant ñu ngi sant aussi suma mbokk griyo yi yi nga xam ne tey ji maax ñoom tey di sant aussi sumay entraîneur bàyyi ñu kenn di sant aussi mbëru tëngeej yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di sant aussi mbëru barñi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di nuyu àdduna Babacar di la wax ne dalal jàmm ay jëf man li ma man moom li ma njëkk a impressionné mooy organisation bi quoi dafa rafet macha allah mais comme koy waxee rek eh, ñun ay lébu lañu te lébu képp ku ko xam rek xam ko si civilisé. waay civilisé ngeen eh, de. la demee noonu lañ koy organisé aussi. Mhm. Eh, suñu image rek la ñu organisé ah. seen image ngeen organisé. waaw noonu la demee. macha allah kon lébu yi dañoo civilisé loolu mooy li am. waaw loolu la yàlla dogal mais nag yaa ngi jëm ci combat boo xam ne yaakaar naa ne le 26 yow ak Gris 2 la boo xam ne bëri na coow lool ngeen ñàkk ñaar ñoo xam ne lool loon adversaire jafe na waa yaaram a kante ba far leen boole yéen ñaar. combat boobu tey lu muy représenté ci doomu dàngu Gris 2 mi nga xam ne moom la fas yéene jàpp mu bëgg ci Gris Fass waaw comme ni ñu ko waxee rek dañu boole ñaari jàmbaar man lii mooy suma carrière dafa man lii mosuma bëree combat bi yee lu tax jàpp naa ne bii mooy suma premier combat ñun dañuy ay doomi góor te Tëngéej dafa am benn taxawaay bu exceptionnel bu ñu am si combat bi ñu bëgg ko lool lool lool lool lool namoon lii aussi ñun ay ndaw lañ ay missionnaire te ngeen lañ ak lepp lu mu mën di am rek li ñu waa tëngéej yoni dañ jëli ko inshallah da ngeen koy jëli amul sax xalaat avec giri de nga jëli le la ngeen tëngéej yónni te moy dem daan giri de muy neex muy metti muy yag muy gaaw dañ koy def amul sax xalaat baaw ah. da ngeen koy jëli rek non loolu amul amul leneen Babacar. ah amul sax ay xalaat déggoo li ma xanaa. li gars yi daan xalaat ñàkk la. waaw combat bi amul sax xalaat. waaw ah, dégg amul xalaat. non amu ci. acca loolu ah, daal gars yi ñu ni ma sa combat yu bari dur bi ngay favoriser sa combat. dañoo bi est-ce que bëri bu la ci woowee di ko ci fekk si. yee xam nga ku def vingt et un combat. waaw def sept kaaw yi si ay daan la kon gars yi ñoo gis kaaw yi rek. bu nekkee sept kaaw kon bëri naa dix mbër yoo xam ne moo bëree ñoom daan leen comme ni ñu ko rek ñun dañuy entraîné lépp bëree dóor li avec frappe la ñu def kenn mësuñu gis si lutte simple donc lu mu laaj rek ñu def ko ci ah. ay jabar beneen bi mooy ki nga xamante nii moo di sunu mbokk mbër ñun ñëpp di Lac de